waay ngewal waay fii mooy ngewal wu gooru dogoog njaajaan si kër xolal wal ma njaajaan nu nëpp gule ambiance bu gule sabar xolal dogo ni ko ay ngewal Gracias. baal ma meew rek moo la rek ah. xëy ma kaasu café <laughs> oh, tey sama tey sama impañ moo xew ah, waaye nag ñu ngi koy takkal boobu nag man tey du ma defal ak kenn mbokku de waaw impañ da nga dafa rek waaw quartier bi <laughs> ci ñaareel ñaareel day jage de waaye mi li muy sëy ay ndax si xaju si boppam nag. na même bu bari rek. yow xanaa fi ma lay defal quoi. Ah, xam nga lu dul jàmmaa ko gën. ah. te jàmmoo rek. ko nii moom man moom xam naa après laa koy naanee. alma bër eh, alma bër. dindi poussière bi dindi poussière bi. mais bari na. tegal ko noonu rek après ngeen dindi poussière bi. lan nga jël bër.

nii la war a day saf dara ñu lay defaral dogal moom ku doon dogo sa biir daal ku doon dogo sa appartement déedéet loolu amu fi de loolu nga dina am na yow nitu fit nanga moom ay problème la nga indi ginnaaw ay jàmm lekk rek te ñaan yàlla te wax weeru koor na nekk bàyyi wax ah Ahmed la rek vous êtes parle trop Ahmed ma yow nag bul ñit mayonnaise aal ma ko fii dogo man aal ma ko fii aal ma ko fii dogo yaay man damay suuf nekkuma bër nekk dama nekkul dara suñu benn attroupement ay kaasa fi ne taw nekkuma sama yaay moo man bërëluñ ma. aywa ah, nekkal na kenn bërëluñ kenn kenn bërëluñ fa ma. te yóbbaale wul kenn almas bi almas bi. yóbbaale wul nag. bu leen neex jël leen. am na benn kudur man la. tey góoru ngéwél la. daa war a saf ngéwél tey sama bàyyi. ñaata yoon laa jóge fii. dem di ndogu ji foofu. waaw waaw. Ah? bërëm waaw. ñaata yoon laa jóge fii. li nga tàmm bokkut ak li ma tàmm. déedéet déedéet. waaw soraasel. soraasel ah, rek fii daal kër gi bàyyi. yéen ndogol laay kër ni jaay kër ni jaay am na ndogu de. boo ko defee nii nag aywa gone gi lekkal nga noppi. dencal naa la ko. Ah. bis boo ma seeree ma jox la diw. billaay kër ni jaay neex na jël bàyyi def nii ma dëmm. bëggul nga bàyyi dëgg kër ni jaay neex na de. am am. ko ci bët fobos wax. boo ma wajal doon teg ma si àll. amen mi prise yi. waaw ndogul ba pare yow it nga ko war a utal. yow rakk nga ko war a utal. xam naa ndox moom li ma ci mën na. ndox moom mën na. tey koy gi nag daa tàng. daa tàng trop mais nag kër gi am na am na ñuy war war gàlla de. leer ñu ngi fi gaa ñu toog. ay war gàlla mi di woor. am naa leen ñuy dégg. xam na moom suñu kër bàyyi du naafi la ay mustaalaf du naafi la. ñaar da nga war di naafi la. am na benn baa boo suñu kër. bàyyi sa sikki ah borom biir bi la. nag xool na nga réglé nag. li wax dëgg. na a ba si seen niveau la. dama weer sama géej rek ku bëgg weer. man naa la bu may werante. am na benn wax dëgg. mën nga nag yaa na yaa na jàmm yàgg. yi ndogalu neex na. yi ngi ndogalu neex. xaaral ba ma dog ma nag. bu boobaa ngi nii. yow ndogalu neex bongo bu tax sa ndey nga liggéey lii xoolal yaa ko moom de ah, tey moom jàmm jàmm tey jàmm laa woote ak ambiance man café gi nag dafa neex café gi dafa saf jar moom xamu ko ko segg waaye man na de café gi neex café gi rek soo paree xoolal jëlee ci ah, mais mi daj ndox mu tàng maa ngi na la naka koor waaw man dingeer laa gisul ak bi sax dingeer mi ci frigo bi ah bëgg bàyyi xam nga fii dama koy gis de dama koy dama ko xaw a xat dina ñëw bu ñu paree léppay ñëw. waaw li ma sa morom de bu amee waaye lii la la. woo service. non man daal yéen a ngi sama tension bi xam nga ne yow soo mënuma laa bàyyi. li ngeen def ci programme bi maa yow ñoo bokk benn la. yéen ñaar ay jumel ngeen ay ngeen yéen ñaar ay jumel ngeen. yéen ñaar ba ba yéen ñaar yéen a ngi foofu yéen ñaar. man tuuti ma soo yéen ñaar ay jumel ngeen. ay zimel ngeen yéen ay zimel nañu ay seex. sabar rek ndox ay seex nañu ay zimel nañu. lan mooy foo soow bi luy loolu. Eh, ay xale ñu ne waaye kii daara la jëm. Ah, yow daara nga jëm daara nga jëm. kër daara kii kii ngeen yàq seen xaar dañu mokkal. lii ci fan la lii ci fan la su ma gisee njaboot gi nii si bokk ndey ak baay. dama xol bi day sedd guy. lu dul jàmm jàmm ko gën. bilaay bilaay bilaay na yàlla yokk jàmm. bilaay amiin amiin amiin yéen a gën a xam ne jaajaam. garab ci suuf lay sax. mosoo fekk garab gi saxee kaw. day yéenee racine yi. boo leen ko dëgëralee mu dëgër. boo leen ko yàqee mu yàq. yaa xaajale woon yaa dëgëral ande yak dogo mi xalé topp seen ginnaaw boo len ko ñaawale mu ñaaw papa kon na rafet papa sama mag la dëgg la mag ngay doon ci man ba ka ba keroog ci laa yóbbu nii dëgg la dëgg loolu deug papa motax xalé yi man nag tey moom daaw loolu dama la ko doon wax yaay papa may ngi nak dom dom dom dom dom dom takal jam sa dara bi kay ci so bi ma ñëw ci sa dara bi li gis ci sa dara bi sa darab bi li ma ci gis. darab bi ngay fanaanoo li ma ci gis. loolu li mel ne ay kii ay. mel ne nen nañ ci toj. loolu mel ne nen nañ ci toj. waaw. waaw boo teyoon tàggu jabar xëy na ne ne ne ne ne ne Mbaye waaye ma tabax waaye nee na naan sama docteur nee na may naan kafe. Aliou eh eh eh kafe wax nee na bu ma naanee kafe complication bi. jaxal kafe gi de mu topp kafe gi man kër ndox ndox naan ah. jërëjëf rek la laa waxee léegi waaye njaboot Cheikh bi tiitalu leen. damay dakk jafe yaa ngi jaaxal na ma de. jeex na damaa yaakaar ne. waaye bu dul bàyyi rek neex. bàyyi ji de ñaar la rek. ah. ku soog amuwaar la la de kan la bëgg. waa nee na da nga am koo gisam. Eh. ah yéen daal moom toog leen rek dinaa ñëw ñëw rek indi leen. ah dem nga xam ne indi nag de. xam nga sa dem gis naa ko benn xale boo xamante ni ah, xale bu baax la gisal ah, dem ah. nee na ko weeru koor la kenn du indi weeru koor. ah ku segg ku segg ku segg. ah yéen tamit daa jël laajte. ah tax na jar de. <laughs> Modou. ma ne ko yóbbu na ma Touba de. kër Ngéwal. yóbbu na Ngéwal fii mooy Ngéwal. Ngéwal oh, ah ku leen dal gis dafa kii dafa gis. nee leen kër Ngéwal. Ah. fii mooy Ngéwal. bu la fa ndogu fekkee rek yow daal ngeen de. Ah. kër Ngéwal sama gàttal yi. fii mooy Ngéwal. nee leen kër Ngéwal. fii mooy Ngéwal woyal. Ah. bu la fa ndogu fekkee rek. bu golli samar xoolal dogondi ko ma ay gawalonu wol ma mbaaya moo seeni dogo ni yaayu amet yaa awa rasul mooy awa njaajaan ñii la yàlla dogal wol ay satu